yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te jéem tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu njàngale mu jëkk mi li yàlla tëral ngir àddina nañu waxtaan ci ay mbir yu am solo ci nit ñépp nit ñi bëgg nañu am tontu ci laaj yi kan moo sàkk àddina ak lépp li ci nekk xam nañu ne yàlla moo sàkk àddina waaye lu tax yàlla sàkk àddina lu mu ci jublu lu tax yàlla sàkk nit lu tax nuy dund ndax yàlla am na lu mu tëral ci dund nit ku nekk ndax yàlla am na yitte ci sunu dund bés bu nekk lan la yàlla di séntu ci ñun naka la yàlla mel ndax mën nañoo xam yàlla lan la yàlla yilif fan la seytaane jóge lan mooy rab lan mooy jinne lan mooy dëmm lu tax nit di am metit lan moo tegu ci dee ndax nit ñi dinañu dekki ndax àjjana ak safara am na naka la àjjana ak safara mel kan mooy dem àjjana kan mooy dem safara ndax mën nañu xam fan lañuy dem àjjana wala safara mbind mu sell mi nee na ci ñaar timote saar ñett aaya fukk ak juróom benn ak ak juróom ñaar mbind mu sel mépp ci gémmiñu yàlla la jóge te am na njëriñ ngir jàngal nit ñi yeddi leen jubbanti leen te yee leen ci njub noonu waayu yàlla ji dina mat ba jekk ci bépp jëf ju rafet li yàlla tëral ngir àddina nanu waxtaan ci mbirum li yàlla tëral ci doomu aadama dinañu gis li yàlla tëral bu nuy jàng ci mbirum yonentam yi nanu tàmbali ci nettali bi yàlla sàkke àddina gannaaw gi dinañu waxtaan ci mbir yi yonent yi yàlla yónni ngir ñu jiite nit ñi ci ay jamono yu bare te wuute dinañu waxtaan ci mbiri nit ak ay yonent yu mel ni aadama noyin ibrahima musa ak ñeneen ak ñeneen sunu jàngee dund nit ñooñu ak li yàlla def ci seen dund dinañu gën a xam li yàlla namm ci ñun yonent yàlla suleymaan bind na wóolul yàlla ak sa xol bépp te bañ a wéeru ci sa dégg-dégg wéeritu moom ci lépp looy def te dina la won yoon wi léebu saar ñett aaye juróom ak juróom benn suleymaan bindaat na ne am xam-xam moo gën am wurus te xel a gën xaalis léebu saar fukk ak juróom benn aaya fukk ak juróom benn kon sunu bëggee jàmm ci sunu digganteeg yàlla war nañu xam lan la yàlla namm ci nun sunu amee jafe-jafe xëy na li ko waral mooy defuñu li yàlla santaane te kóllëre doxul sunu diggante ak yàlla genn guddi yàlla wax na suleymaan ne ko su ma tëjee benn bés asamaan si ba taw amatul wala ma sant njéeréer yi ñu yàq réew mi wala ma wàccee jàngoro pes ci kaw sama nit ñi su boobaa su sama mbooloo mi wuyoo sama tur toroxloo fi sama kanam di ñaan te di wut sama coobare te di dëddu seeni ñaawteef noonu dinaa leen jox nopp ci asamaan te baal leen seeni bàkkaar te fajal leen seen réew ñaar chronique saar juróom ñaar aaya fukk ak ak fukk ñeent kon sunu wutee yàlla ak sunu xol bépp yàlla nee na dina ñu dégg am na ay laaj benn sooy tabax ak kër fan ngay tàmbalee dangay tàmbali ci fondement bi nga yëkkati miir yi tegale birig ak birig gannaaw gi nga xadd ñaar ndax mën nga xadd te yëkkatiwuloo miir yi ba noppi déedéet kon sunu bëggee xam lan la yàlla tëral ngir nit ñi nañu tàmbali ca njalbéen ga ñett ndax dinañu lekk bés bu nekk waaw dañuy lekk ndaxte dañuy xiif te sunu yaram soxla na dund te soxla na am kàttan sunu xel itam soxla na dund te soxla na am kàttan gu jóge ci yàlla ñeent kan la ëpp doole ci àddina si ak ci jaww ji kàddug yàlla moo ëpp doole ci àddina juróom lu tax kàddug yàlla ëpp doole ci àddina ndaxte yàlla rekk moo xam dëgg gi gépp ndax yàlla am na yitte ci nit ñi te it ndax yàlla bëgg na wax ak nit ñi waaw yàlla yónni na ay yonent te binduloo leen mbind mu sell mi ngir nit ñi xam moom mooy kan yàlla am na melokaan yu bare waaye dinañu tànn juróom ñaar ngir xam li yàlla tëral ci sunu dund juróom ñaari melokaan yàlla yii la benn yàlla kenn la amul moroom ñaar yàlla dafa jub yàlla dafa sell te jub te amul benn bàkkaar ñett yàlla mooy boroom doole yàlla mën a def lépp lu mu bëgg a def ñeent yàlla xam na lépp xam-xam yépp ñu ngi jóge ci moom xam na bépp xalaat bépp kàddu ak bépp jëfu nit juróom gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla lépp lu baax ci moom la jóge mbëggeel njéggal yërmande mbaax aajo juróom benn yàlla bëggul bàkkaar yàlla amul bàkkaar yàlla dina àtte képp ku bàkkaar yàlla dina daan képp ku bàkkaar juróom ñaar yàlla lu mu dige def ko yàlla dina def lépp li mu dige lu mu yàgg-yàgg nanu bamtu juróom ñaari melokaanu yàlla yi yàlla kenn la amul moroom yàlla dafa jub yàlla mooy borom doole yàlla xam ne lépp gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla bëggul bàkkaar yàlla lu mu dige def ko dinañu jàng ay nettali yu bare nettali bu nekk dinañu ci gis naka la nu yàlla di wone ay melokaanam dinañu gis itam nettali ci mbirum nit la ko dalo ca ndorte la déglu leen nettali bu nekk ngir xam yan melokaani yàlla ñoo ci feeñ beneen yoon dinañ waxtaan ci naka la yàlla sàkkee malaaka yi